APRC président jammela keso APRC président jammel ɗum noon walla mo jamba kerode moye fola so gise mo e carte fayo sani carte amandiya do se koronto amnan do ko sila e, tuma do nya fon do nya ska lanjuro so ba ni dunda mo de hawjinde la ni futata ye e, kes jamba kero jibe me ya lon ko ki nga xam ne ni nataal wala betar na bala nataal xool leen fii seet leen fii nataal bi moo fay nekk ci ay waramba koyo dum ay nafa koyo dum alam fango men babulu ak jasum ame ay on naka siso la eh, ta sabayol be mili men ndingola añingol be band atla nataaloo atla nataaloo mool ni candidate men fana war mbakkoyo ɗum ni dunta kono to war mbakkoyo je yenna fo koye tiyo je imam fenja sisoro meme be ko président la ñi murba ima ñin kesoje banda asalon ko mankede la candidate o maka ya jammete ndola aprc ñun aprc na parti no taman seero fula ñaw wolon ten juoti mais ya lonko fantiŋo be dem uh, semberiŋa la aniŋ dabandiŋo aniŋ dabajaŋo kuno be loorin ten juo uh, jambo kan santa mi yewo je bokso meŋ bala sala wonum président jammel la bakko afta ala hakiloto lawol to ala hakiloto wassalam jërëjëf Lamine Kaba Bajo honorable eh, a koy ne mbara honorable Lamine Kaba Bajo so wax bi rafet ku moñe ñaata léegi dafa mel woteef gi agana si a ko ku bukan ñëpp bëggoon déglu mooy ñëw wax si kon bëggoon naa yéen ñëpp ngeen dégloo ko xel te bañ koo dégloo xol kooku mooy kan suñ mi APR TV ku ñu fal on the 24th of November mooy kan His Excellency Dr Alhaji Yaya AJ su suma taxawaabi fii Jamra may gërëm leen dama leen bugg a gërëm depuis am na ñu nekk di ma support ba tey leen a nuyu soo gisee ñu ne Yaya Jammeh mooy président yàlla moo tax waaye gannaaw yàlla li tax mu def ma président mooy yéen nit yi Gambia soo leen ma jàppalewu toon ni kon développement bu ñoo wax yëpp ni kon du am kon maa leen a gërëm si support bi ngeen ma jox bee ñu mën a li yàlla ànd eh, nangu jox ñu ñu liggéeyal leen liggéey bu rafet bi

waa jërëjëf am na lu ko gën a am doole. boobu laa laa la naa jox. mooy yàlla naa leen yàlla fay. xam nga li tax. jërëjëf baax na de. seedaan na xool de. waaye su la yàlla fee moo laa dugal arjana. kon yàlla naa leen yàlla fay maa leen a gërëm know all your troubles of bad dreams, sickness, barrenness, hopelessness, misfortune can be a thing of the past? Come to Winners Chapel Manjai Kunda, the home of signs and wonders, where your dreams of traveling, prosperity, promotion, marriages, fruitfulness, healings, and deliverances can come true without struggles. Join Pastor Dominion Adebayo for the Word of Liberation on Sundays. First English service 8.30 a.m. Second English service 10.15 a.m. Wolof service 8.30 a.m. Power Communion service at 6 p.m. on Wednesdays. Visit our Gambian headquarters in Manjai Kunda or any of our branches at Manikunda Highway in Basse, Balanga area after Trust Bank in Farafenye, by Jacob Bikama Highway in Brikama.